ay diir bu gàtt. nag euh, Serigne Diop médiateur de la République Sénégal ak réewum nag Amérique ñoo nam daal dëggal kon seen relation bilatérale ñu saytu ko nag ci ab euh, revue annuelle de coopération diggante Dakar ak Washington USAID na dugal kon 69 milliards de francs CFA ci atum 2014 nag ci bànqaasu santé bi mbéy mi ak wàllub bonne gouvernance ànd ci ak El Hadj Malick Cissé revue annuelle conjointe portefeuille aide au développement te USAID di ko amal saytu nañu coopération ñaari dëkk yi fu mu toll si atum 2014 réewu Amérique dugal na 69 milliards si suñu xaalis si projet yi jàpp nañ si wàllum santé wàllum pêche wàllum collectivité locale wàllum agriculture. ci wàllu mbay wax nañ ko fii léegi ci wàllu santé ci wàllu napp gi ci wàllu gouvernance même ci wàllu collectivité locale yi loolu yëpp états ak Sénégal am nañ ci ay relation gis nañu daaw ak ren États-Unis daanaka dugal nañ fi ci wàllu xaalis ci USAID lu toll ci juróom-ñaar fukki milliards yu manqué tuuti donc def nañ ko ci domaine yooyu yëpp kon dafay baax ñu wax leen alal jooju fan lañ ko def. ay jafe-jafe nemmeeku nañ ko tamit si yenn si programme yu si mel ni programme national d' investissement agricole ak nouvelle alliance jëm si sécurité alimentaire ak nutritionnelle amatu Ba di jëw liñ gu ñu dénk wàllum koom-koom ni rëkk-rëkk yi am si programme yooyu la daañ ko xool ba indi si ay saafara moom mu jàpp ni revue bi si anam yu jaar yoon nañ ko amalee. gis nañu ni aussi ñoom kontaan nañ ci lool tout comme ñu aussi kontaan donte am na ay domaines yoo xam ni dafa laaj ay amélioration moom dañuy wax léegi ndax it euh, liggéey moom du mat du jeexandoo toujours boo defee rek am na leneen loo xam ni boo ko ci defoon xëy na mu gën a baax c'est une revue transparente dinañu toog ne leen lii ngeen fi def lii ngeen fi def lii la jural réew mi ñoom ñu wax ñu ci seen xalaat di ñu delloo leen suuf seen xalaat. ambassadeur bu États-Unis fii ci Sénégal mu ngi invité gouvernement bi mu accélérer réforme yi jëm ci wàllum agriculture ambassadeur bi di ñaawlu bu baax a baax grève yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci wàllum ñàng bi moom mu jàpp ni yooyu day nasaxal seen objectif yi nga xamante ni jëm ci bile domaine coopération bilatérale diggante Sénégal ak États-Unis atum 1961 ba léegi la.